bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci suñ fukkeelu jataay ak juróom ci jataay yi tafsirul quraanil karim yi ñuy ànd ak yéen ci weeru koor wi tey ñu war a firi saar wi tudd alqaaria suuratul qaaria saar wi itam saar la wu tiitlu saar la wu raglu bokk ci saar yi nga xam ne dafa wàcce màkkatal mukarram yàlla tàmbalee ko ci baatub alqaariatu alqaariatu mooy ndaw tiitaange lu rëy ndaw xool yu tiit alqaaria ndaw xool yu tiit mal qaaria waaw lan mooy tiitaange jooju tiitaange jooju lumu ab laaj la boo xam ne da koo laaj ngir bëgg ñu déglu bu baax li muy bëgg a wax yëmut ci loolu de mu teg ce wama adraka mal yow kii di déglu wax ji ndax xam nga tiitaanga jooju lu mu yow mi déglu wax ji ndax xam nga tiitaanga jooju may wax lu mu yawma yakunu naasu kal farashil mabthus tiitaange jooju may wax ab bis la boo xam ne bu ñëwee nit ñépp dañuy tasaaroo tiit lool tasaaroo ci dënd bi ba mel ne ay gunóor noonu ñu tasaaroo bu ñu séenee safara noonu ñuy naawe di ko wër di tasaaroo bis bii may wax bu ñëwee noonu lay mel ñépp dañuy tasaaroo ñépp am njàqare kenn ku nekk sa bopp dong doy sëkk sëkk soxla dootal keneen dootal keneen dootal lenn lu may noo def mucc rekk moom moo lay soxal yawma yakunu naasu kal faraashil mabsuus nit ñi dañuy tasaaroo di parre parre mel na ay lëppalëpp mel na ay gunóor wa takunul jibaalu kal hihnil manfuush bis bii may wax bu ñëwee itam bisu njàqare boobu doj yi sax dañuy tiit ba nooy nepp mel na wëttéen mel ne ka karaw nooy nepp mel na karaw kal xihnil manfuush bis boobu bu ñëwee fa ammaa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fii ishatin radiya bis boobu bu ñëwee ci lay dajale mboolem sama jaam ñi liñ jëfoon lépp ci lu baax ak ci lu bon ñu teg ko seen kanam ñu peese ko xool ba xam ñu peese lu baax li peese lu bon li xool ba xam fa amma man taqulat mawazinuhu koo xam ne ay balance dañ koo peese jëfam yu baax ëpp jëfam yu baax wat balaasam yu baax diis lool fa huwa day fii anshatin radiya day nekk ci dund ku neex dund gu texe kooku ma dugg na kooku mooy noppalu nag kooku mooy amum nooflaay ba faaw. di dund neex dund ko ànd ak mbégte ak bànneex waaye wa amma man xafat mawazinuhu koo xam ne peese nañ ay balaasam peesa lu baaxam mu woyof tooy yi bariwut ndax dawut jëf lu baax dawut góorlu fa ummuhu haawiya kookay day dëkkuwaayam mooy sawara fa ummuhu ji mu wax mel ne kuy wax yaayam mooy sawara da ko tudde noonu ndax ni nga xamee ne nit ki day làqu ci yaayam mu nekk dëkkuwaayam kii texee di itam sawara woo mooy dëkkuwaayam dafay dëkk dugg ci biiram comme ni gone di dëkkeeg yaayam di taqoo moom fa ummuhu hawiya hawiya tur la ci turu safara yi ba ma xeeloo ba noppi mu andi beneen laaj wa ma adraka ma hiya hawiya boobu moo wax muy sawara woowu ndax xam ngeen lu mu yow mi may waxal ndax xam nga lu mu wa maa adraaka maa hiya ndax xam nga xaawiya boobu lu mu mu mel ne dañ koo na lu mu mu ne naarun xaamiya sawara la wu tàng jër sawara la woo xam ne daa dem ba fa yam mu tàmbalee fa sawara la wu tàng jër woo xam ne aw tàngooram mu ne su ko misaal loolu moom la yàlla di wax ci saar wi ci ab tënk bu gàtt muy aw saar woo xam ne yàlla mi ngi ko tàmbalee ak tiitaange loolu nga xam mooy dal nit ñi yowmal qiyaam seen xol yi tiit ñépp damay baatu alqaaria wax na ci alquraan karim ci beneen béréb ne wala yazaalu alladina kafaru tusibuhum bima sanau qaaria jële nañ ci abu hurayra mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na seen sawara wii ngeen gis ci àdduna day aw doggit la rekk ci juróom ñaar fukki dog ci sawaraw àllaaxira maanaam sawaraw àllaaxira buñ ko séddale woon juróom ñaar xaaj benn xaaj ba rekk moom moo ñëw fii ci àdduna nga xam na kon sawara wi nekk àdduna ak li muy tàng tàng ak li muy mën a mën a loore bokkut ak dara ak sawaraw àllaaxira ba nga xam ne ci yàlla di mbugale ñi ko moyoon te texee de yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ yàlla musal ci wara kon mbokk yi mel na yàlla moom lépp lu mat a wax mi ñu koy wax lépp lu mat leeral mi ñu koy leeral balaa ñuy faatu balaa ñuy dajeek moom lii lépp la koy wax ngir yéen ma deem lii lépp la koy wax ngir bëgguñu waajal ko ndax may nañu ay xel may ñu kàttan wax ñu lu baax wax ñu lu bon yónni ci ñun ay ndaw wàccee ci ñun ay téere may ñu ay moyen yu ñu mën a jàng suñu diine may ñu ay moyen yu ñu mën a xame lu baax ak lu bon kon bu tegee bu ci tegee xuppe yii nii ngir bëgg ñu góor góor boobu ëllëg yi man ñoo fay lu baax man ñoo fay àjjana man ñoo fay fay bu neex kon rekk waaye képp kuy dund na nga góor góorlu balaa bis penc ñëw nga bokk ci ña nga xam ne see balance yiw see balance yiw day oyof kenn ku nekk nag góor góor fexe ba ay balance am dis gann yowmal qiyaam fexe ba ay balance am dis mu bokk ña nga xam ne fii ashatin radiya fii ashatin radiya mooy dund dund gu neex la ñuy dund te loolu la koy may nag mooy bañ a xeeb dara ci jëf ju baax waxoon ne ko jotaay bi weesu yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ci lu baax bay wax ne bul xeeb dara yow jullit bi ci lu baax donte sax da ngay fekk sa sa mbokkum jullit mu ngi root nga duyal ko ak paanam bul xeeb dara ci lu baax doonte da nga sa mbokkum jullit sax ubbil ko sa kanam mooñ ci kanamam ñu bañ a bay sarax kon na ku nekk góorgóor te bañ a xeeb dara te lu bu baax a baax yàlla na yàlla may dégg ak topp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu